élection bu nekk. le droit syndical politique. le pluralisme politique ni nga koy defee mooy parti politique yëpp dañu war a yem ay droit warul am ay parti yoo xam ne dañ leen di privilégier ak parti yoo xam ni dañ leen di bundu parce que bu fekkee nii da nga créer parti politique am sa récépissé ñu lay bunduxatal ci biir seen politique bi dafa mel ni kenn reconnaître donc mën nga am pluralisme politique nii mais ci doxalin bi pluralisme politique bi kenn respecté wu ko ndax dafa am par parloo lii parti bii la muy am ak la muy jot beneen parti du ko am du ko jot sa yoon jaaralewu ko foofu. mais est-ce que par parloo mun nañ ko wax parce que dafa mel ni les partis d'opposition ñoo bokk soor bu xanaa bu amee parti bu ñu favoriser ça peut la le parti présidentiel la majorité présidentielle mais disons que euh, à part APR yeneen parti yëpp ñoo ñoo bokk soor de. déedéet. Hmm. parti buy appuyer majorité présidentielle bokkul ak parti bu opposition. bokkuñu soo waxuma majorité présidentielle boo génnee majorité présidentielle. parti politique yëpp bokk sa opposition bi. li may wax moo tax la d'abord parti majorité bi waruñu leen woon jox benn privilège boo xam ni yeneen parti yi amuñu ko. mais yenn privilège comme. <laughs> boo boo may laaj. yan privilège lañ leen di jox. élection yi déjà ni ma la ko waxee sànq liñ ci xam ak liñ ci mën benn parti opposition mënu ko xamu ko. donc waroon nañu instituer d'après yow euh, pour euh, élargir l'espace. waroon ah. nañu dëggal euh, lii nga xam ne wote nañu ko ci réforme constitutionnelle 2016 bi mooy le statut. du du chef de de de l'opposition déedéet kooku kooku man du sama débat statut chef de l'opposition d'accord ci non du ma ne d'accord ma ci mais du ma sa du sama débat man mm. statut chef de l'opposition mais dama bëgg bu fekkee ni lii ci processus électoral bi kii xam na parti bi xam na ko beneen parti war na ko xam lii parti bi mën na ko ci processus électoral beneen parti war na ko ba ñu yemale parti. égal accès à l'information voilà. aux instruments électoraux. yemul foofu financement des partis dafa nekk lu am sol parti majorité bi fu ñu jëlee seen xaalis ressources publiques yi dañ koy jëlee parti majorité bi li ñuy yor di ci fonctionner yépp ci ressources publiques yi lay jóge parti opposition amuñu benn ressource publique bu ñu leen jox lu waral loolu. alors qu'on avait réfléchi sur le financement euh, des partis politiques. oui ñoo war a yem devant les ressources publiques ñoo war a yem bu fekkee ni pluralisme politique dëgg am na ñoo war a yem mënuloo jël ressources publiques yi nga xam ne ñépp ko bokk citoyens yépp nga jël ko jox ko yi parti yeneen partie yu ñu ci def. nga nga bàyyi leen.